Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce lundi 18 décembre 2023 sur la chaîne des grands événements VIP People TV ginnaaw bi nga que le mandataire Ousmane Sonko demande une foofa caisse de dépôt et de consignation déposée de 30 millions ñu dal di koy delloo ba par le biais d'un huissier ginnaaw loolu dit kii di Ousmane Sonko choisit pour que ñu del parrainage citoyen jagleel ko muy plan B di Basirou Diomaye Faye nañu jàpp ni que daal kii di Bassirou Diomaye Faye dem na déposé ji fofu caution ci caisse de dépôt et de consignation de 30 millions waye nañu jàpp ni que ni ñu won woon Ayib Daffé di Bassirou Diomaye Faye ken dàqu ko caution li di caisse de dépôt et de consignation dal dina koy jël ndaxte moom turam mi ngi ci liste électorale yi ba tey suñu sukkundiko ci suñu source mi ngi xamal ni que dal ka kii di Bassirou Diomaye fay moom mi ñu désigné candidat bi nga xamante ni opposant Ousmane Sonko moo déposé woon caution ci niveau caisse de dépôt et de consignation li ñu mën a xamle daal mooy suñu source mi ngi xamal nag dal ka lii di ex parti passif mi ngi joué ci beneen deuxième tableau buy wane ni que preuve bi nga xamante ni mën na appuyé wu suñu source ginnaaw bu ñu déroulé lii nga xamante ni mooy sourdine bi seen plan B mu doonoon kii nga xamante ni mooy candidature bi nga xamante ni seen leader Ousmane Sonko moo ko privilégié. mu ginnaaw loolu nag kii nga xamante ni mooy Bassirou Diomaye Faye moom ci boppam avantage bu mu am tey ci dossier complète maanaam mën na doon contrairement li nga xamante ni Sonko mën na ko am pour rappeler leen daal kii di mandataire Ousmane Sonko ay Daffé moom ci boppam toujours récupéré gul lii di fichier de parrainage yi foofu ci niveau direction générale des élections mais lépp loo xamante dal daal jot nañ ko ci attestation d'accompagnement accompagnement bi nga xamante ni quittance de dépôt bi nga xamante ni mooy caution bi foofu ci niveau caisse de dépôt et de consignation muy Bassirou Diomaye Faye ginnaaw bu mu déposé lii nga xamante ni caution jot na attestation kon nañ jàpp ni que daal Bassirou Diomaye Faye mën na déposé Ousmane Sonko kii di mandataire am ba léegi jotagul fiche de parrainage te ko jotul fiche de parrainage mënoo déposer li di caution Bassirou Diomaye Faye dal Poser na caution en tout cas l'olou mën nañ leen ko xamal caisse de dépôt et de consignation jox na attestation bi nga xamanteni Ousmane Sonko mënu ko am. <laughs>